rek bokk ci félicitations yi parce que. waaw tendre la main au MFDC. oui lancer un appel c' est quelque chose très bien. Mm-hmm. le Sénégal et indivisible. Ah ku ko mën a def rek. da da da war a parce que président Macky Sall def ko pour boppam. waaw pour parteem Sénégal moo soxla nekk ak. ci jàmm ak Casamance. Mm-hmm. donc loolu man dama ci ma lay génne ay mots de félicitation. Mm-hmm. waaye loolu moom wax dëgg yàlla dama koy. rafet bu baax a baax a baax. discours bi Sédhiou aussi très rapidement. Euh, li ci Assane wax rek moo ci nekk parce que président Wade waxoon na fi ne bon waa Fouta bu ngeen ma defalul lii du ma def nangam façon wax yooyu dafa jar di moytu ci discours jiitu réew ku ku jaboote ñëpp donc quatre cent milliards yi lépp baax na waaye booy def discours doo def discours comme kuy def campagne pour ku la falaat. man sama jàngat ci discours boobu mooy. day mel ni kuy so kuy kuy kuy kuy jëm campagne pour ñu pour ñu voté la loolu tamit lu jar di moytu la bu jar développement ngay def. yow xam nga ko sa frère libéral la sa frère libéral la. plutôt euh, dafay dafay tendre loxo. xam nga da nga da nga da nga def plateau laaj ku nekk xalaatam <laughs> bu ma dégloo bu ma dégloo discours bi. nuruwuma discours koo xamante daan kat jërë ngeen jëf def naa li ma mën defal naa leen lii ak lii. Mhm. ca kanam ah, gouvernement bi fi nekk dina defaat lii ak lii. waaye day daal di mel ni daal moom ah, daanaka. Ah. kuy kuy kuy campagne daal ku bëgg daal di wax.